voilà suñu nitu diine yi nekk fii suñu dëkk valoriser leen vraiment. Mm. nekk na lu lu rafet. c'est un bon en tout cas c'est très bien. fan yi nag am na bu neex bu ñuy euh, xam nga ban la. a gën. Ah, ah. raw nga ñii leeg raw ñëwoon yaay ki gën gën. yaay ki gën a gën way la mooy sama liggéey yow yaay ki mën a fay yaay ki gën a gën safaaraw fi tasuleet ma wayal yonnen be yaay ki gën a gën ana be wuyoo na beewu ki gën a raw na ñi Madina laa bëgg a dem la moo dàq lem yaay ki gën a gën. raw na ñi Sen TV na bee. Moustapha raw na ñe yaay ki gën a gën. Njol ma kaa laay la laay rasulullah muhammadu rasulullah maa la woolo ana soppa yenen be daba boy ana be ana be wuyo yaay ki gën a gën Mustafa raw nañi rendez-vous ci gën a gën billaahi walaay talaahi ci na be gën a wóor mooy ki gën a gën Mustafa raw nañi mbay baay Fatima Mustafa raw ñawoon yaay ki gën a gën ana be wuyoo ana be wuyoo yaay ki gën a gën Mustafa raw nañi Muhammad loxo Mustafa sama trondo sa trondo wuyee ku mm-hmm. ki gën a gën ay ki gën a gën duma ki lay mujjee lay lay la la gën a tuuti ni la xam naa li ma woote waar li ma woote waar yaay jàll jaam ñi yow lan doon seet yow la yow yaay muhammadu rasulillah seydina muhammad xaatibi nabiyina imaamul mursalina mooy seydil wara seydil awalina sidina Muhammad mooy sayyidul basar mooy abibina imaamul aramayni jaajëfa yoneen man am naa wasila kon man mii dama jafandu fa ma jafandu daa jafandu jafandu yëpp àndu boolooy jafandu ci seydina muhammad sëriñ bamba gaat may xaadim rasuulillaay lu mu jur moom la ko tudde kii kay xam na cërëm seex na seex saat boo nga naan ca innal muraada ku sañoon doon pënnu dallu seydina muhammad kii kay xam na cërëm maam li maamu laay borom aji boo daaya laay xam na cërëm seydi alaaji maalik maalik kenn ko koo fay maalik borom miim yee moo ñu ta dal yax bu rëy bi ba yonent juddoogul xunu ni mu juddoog fa mu juddoo kon kay xam na cëram ay waleen ñu ñaane ci barke Seydina Muhammad ak saabaam yee moomoo nangu leen ñaanay yegg leen suufay yàlla lay ñaane nanga ñu nangul coonay bekkoor ci barke Seydina Muhammad Seydi lawalina imaamul mursalina jooja waay xanaa xamoo Seydina Muhammad na yàlla sàkke aw dënnam yaatal ko sol ca ay xikaam mbaggam ya sekk xaatimam ku xaatim ba texe far sidina muhammad sikki mu jëkk waa rafet faasam ya taaru los wajat ak noom mbay baat yaa law cet njañam ya ak seeni kawar seydina muhammad sunu trondo ñuulul weexul ba mel ni meew mooy kilifa yi geew bu mu teew suy muuñ gémmin ga di melax rasul xonkul ba mel ni xewar seydina muhammad waxam ju neex jaaraw xalam lamiñam ak tuñam yaayam cafkay loram gàcceel na leen wurusu marjaana lay nduru lor seydina muhammad sunu turandoo baaraamam sew yeelam sewul sëggul siiñul biir bërëyul jëllul rasul du ku dër seydina muhammad bu nu woon moom yàlla du bind sunu maam aadama wóor na saaba ya seydina muhammad keroog ba ñu ne nabi judd na la la la leeral àddina nabi moo di buntu aljana jàppal mu doon sa kër seydina muhammad ma bi mi may way ah keroog ba mu juddoo la yàlla abrak la xam ak ñanam yu rëy yaa jooja waay bilaay kenn du yeneen mbay ñu jaar nii balaa jant bee sog man ma gàddaay yeneen bee Sëriñ Bamba nee na Baay Ablaat ah, borom ni nekk borom màggal gi ñu jëm maami Serigne Mountakha Mbacké Seexul Xadim moo toj Gabon maa yomba kutime doomi jeg si jaaxal nasaraan bi maami Seex Madul Karam Mbacké noorey ni Serigne Touba ma jeg way fi yaaram garaw gépp góoreey mooy Serigne Touba ka semmal Kajoor moo daan yéega waayam diggi nit nit kuréer ca paye boromam ba muy sant buur seexul xadim bàyyi Serigne Saliou borom jàpp ndal xabaan lagan ndookaak xaymayaar daaray njurul daaray umul xuraa borom ñaari daari ca ngaab borom njowaan ga toroon xay ga Serigne Saliou moo nu tere yalwaane yalwaane maam Saliou oh, man dégg waay waay waay Serigne Saliou da daan yeewu xaaju guddi di xool ndax yee sangu nañ Serigne Saliou moo bari yërmande Serigne Saliou la ilaha illallah ak bari kaaraange Serigne Saliou ma way dafay gën a nekk Baye Sall Baye Sall Mbacké Serigne Saliou wóolu naa la yow la doon ni ràññee ka nga jàlle ab saalixaat du yalwaani bu ko defee daanari caxaan ki le jara jox sa doom saali yaay borom jurul sëriñ saaliwu bëgg naa la la la ñu ràññee gaay nga jàlle dama bëgg ku sopp sëriñ saaliwu yow ngoo jóg taaxaw waaw waaw waa plateau bi jóg leen yëngoo ma way sëriñ saaliwu waaw waaw kooku bëgg Serigne Saliou way wi jëmmu la waaw dëgg-dëgg yow lay way di la waxtaane maam jóg leen yëngu dëgg-dëgg lay way di la waxtaane maam ah Saliou Serigne dem na ndongo yaa jooyo Sali xaadi ay waay sunu maam Sëriñ Saliou dem nañ. Eh, te te yow moom xam naa ne ci makan nga jóge si <laughs> makan la jóge paas yëpp de. waaw paas yëpp ñuulal na ko. Eh, eh, dafa am tijaan bu ma neex lool Mouhamed. woyu tijaan bu ma bëgg boo xamante ni daal dañ ci wax ay warwaraa. ba ma bëgg la. araftul wara sar am MD bu jeexee rek. ndeysaan àndal ak moom. waxar ban wala ara. loolu dafa neex. bis li fatal mansoor fii saa iril wara. استسابخ الأقوام يوما إلى الولا يكون يكون إماما في الورى والورى والورى والورى محمد منصور غناو باي منصور موي باي سن باي منصور غناو باي loxo ca kaw loxo ca kaw ñu màggal sëñ Bay Mansour loxo ca kaw Mansour mooy baayu sëñ Bay Mansour na fi وخل أرفت الورى شرعا وحربا ولا أرى كمثلي فتى المنصور في سائر الورى إسلا سابخ الأكوان يوما إلى العلا يكون يكون إماما يكون أماما يكون أماما في الورى والورى والورى والورى محمد منصور Mansoor ga sa gànnaaw baay Mansoor mooy baayu sëñ Mbay Mansoor ga sa gànnaaw baay Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou ma sa gànnaaw baay Mansoor mooy